الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى رب اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي nga xamne ñoo ñuy bàyyi xel fu ñu mën a nekk rawatina bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel ci seen jotaay yóbbalu koor ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaare ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax ci fan yu mag yi nga xam ne ci lañu nekk ci weeru mag wi muy weeru koor di ñaan borom bi subhanahu wa taala nangul na sunu koor te jéggal ñu mboolem sunuy rëcc rëcc mbokk yi xam ngeen ni seen yóbbalu koor ñoo ngi woon ci tomb boo xam ne tomb bu am solo la muy sarax ak li ci aju mbokk yi xam ngeen ni sarax waxoon nañ leen mooy lan ni mu dikkee ci alquran ak ni mu dikkee ci sunna waxoon itam ñun mafhum bi nga xam ne moom lañ ci déggee mu wuute lool ak ni nga xamante ni moom la lislaam jàngale kon mbokk yi sarax fawu yi def ciy daje mu door a nekk li ñuy tudde sarax fawu li ngay saraxe dafay doon loo xam ne lu lew la kon mbokk yi liñ ciy déggee mooy safaanub lu lew ku ko saraxe itam amoo sarax kon li ñuy saraxe mooy lu lew loo am ci alal lu mu bari bari te lewut boo ca saraxe itam sarax booba kenn du ko nangu sarax yitam mbokk yi loo bëgg itam ngay saraxe xam ngeen ne waxoon nañ ci jotaay yi jàll sarax du am couleur sarax du ab ab lim comme ni ko ñenn ñi di defee ñetti doomu guro wala juróom-ñaari doomu guro loolu ku ne xam na ni am na ay pexe yu ne ci biir wala ay ginaar gu xonq wala ay ginaar gu weex wala ak nag wu ñuul yooyu yëpp ab jullit dafa war a moytu di dugal yu mel noonu ci ab sarax ndax borom bi moo waxoon ni faman kaana yarju liqaa rabbihi falyacmal camalan saalixa wala yushrik bi cibaadati bi axada sunu borom nee na képp koo xam ne yaakaar ngaa dajeeg man ëllëg nee na na ngay jëf-jëf yu baax te bu ma bokkaaleeg lenn kon sarax bi na yàlla rekk tax ndax bu fekkee dangaa saraxe ngir nàngam sunu boroom dalay bàyyeeg nàngam googu kon jëf yi di ko sellal lu ci ama am solo la mu doon loo xam ne nag bokk yi lu bari ay ngëneel lool la ki ngay sarax itam doo ko sarax ba noppi ne ko ñaanal ma kon day mel ne daa am loo bëgg ci moom bëgg koo fayee sarax boobu kon mbokk yi sew sew yooyu yëpp dañ koy bàyyi xel bu baax a baax kon mbokk yi nekk sarax dana fay merum borom bi subhaanahu wa taala sunu borom dana jéppi aw xeet wala mu jéppi ab jaam ci ay bàkkaar ak ay ñaawteef yu bari waaye mu dëkke di saraxe ba sunu borom teggil ko bàkkaar yooyu moo tax ngeen gis sunu mag ñi ridwanullahi alayhim saa bu maral mësaan am ci jamonoy nawet bu ñu digalee mbokk yi ñu jàng alxuraan ci néegi yàlla yi faaw dañ leen di waxit lu ngeen man ci sarax ngeen di ko def ndax sarax dana giifal merum borom bi subhaanahu wa mbokk yi sarax dina far ay bàkkaar nit dana am ay bàkkaar yu bare bare bare bare bare waaye dëkk di saraxe te sellal ko ba sunu borom jéggal ko ay bàkkaaram mbokki sarax dana fekk deewin wu ñaaw boo demee ci masaalikul jinaan cheikhul xadim radiallahu anhu mi ngi jàngal lu mel noonu nañu sarax dana fekk juróom-ñaar fukki deewin yoo xam ne yépp ay deewin yu ñaaw la ci misaal tey nga waroo a faatu ci accident bu metti sa cër yépp tasaaroo nga xamne say bokku bu ñu dañ koy for nga saraxe ab saraxe suñu borom dimbali la nga faatu ak faatu go xamne ci sa biir kër nga koy defee mba ci sa kawlal mbokk yi sarax amna doole jooju waye sarax itam dana tax malaaka yi borom yi dila ñaanal ndax xam ngeen ne amna malaaka yo xamne seen liggéey moy dañuy wër di xool jaami yàlla yi nga xamante nii li leen yàlla jox ci wërsëg ñu ngi ciy dimbali seen moroomi jaam ku dimbali ñu ne ah sunu borom sa jaam sàngam de lam yoroon joxe na ko dolli ko waaye ku téye itam malaaka yi dañuy wax ni sa jaam sàngam day sunu borom jarut jox ndax li nga ko joxoon da koo téye kon ñu wax ni sunu boroom boo koy jox doo ko compal kon sarax kenn du ko compal kon borom bi subhanahu wa taala boo jox dang koy ñaagal muy lu am solo kon sarax mbokk yi deesu ko chomp waye sarax dañuy ñaagal borom bi subhanahu wa taala waye sarax dana musul nit ki ci mbugalum yawmal qiyam xam ngeen ni hadis bobu yantu sallallahu salaa wasallam waxon ni nit ki dana saraxe ben tandarma bu lew ma dencal ko ko man borom bi jël ko ci sama ndeyjoor dencal ko ko ba mu nekk aw doj bu ëllëgee ma ma ma jox ko ko ne ko lii mooy sa sarax bi nga xamante nii moom nga daan sarxe ndax waxoon nañ leen kenn ku nekk ëllëg ci sa keruk sarax ngay taxaw kon sarax lu ama am solo la mbokk yi sarax dafay dolli wërsëg sarax dafay teg dafay tax wërsëg wi nga am muy sa alal ji sunu borom da ciy def barke waaye sarax itam mbokk yi xam ngeen ni dafay yëkkati darajay doomu aadama bi waaye sarax itam dana woyofal xisaab ëllëg waaye sarax itam dana yombal jéggi siraat waaye sarax itam mbokk dana waral bu ëllëgee say plateau balance yi nga xam ne moom lañ lay peeseel say jëf yu baax dis ganu kon mbokk yi sarax nañ ciy góorlu te sàmmanteeg yi nga xam ne moom lañu lislaam santaane li ngay saraxe na doon loo bëgg yow muy lu baax te na nekk ci alal ji ngay saraxe mu nekk alal joo xam ne alal ju lew la bu la neexee nga jox ko say jegeñaale bu la neexee nga jox ko sa dëkkandoo bu la neexee sax nga jox ko sa doom ji nga jur rawatina nag sarax bi nga xamante ni moom nga yëkkati di ko jox sa mbokk ndax ki yàlla yónni woon nee na sarax bi nga xam ne moom ngay jox sa mbokk dinga ci am ñaari tiyaaba dinga ci am tiyaabay sarax dinga ci am tiyaabay jokku bokk kon mbokk yi saraxanu noonu bu ñuy saraxe nañ koy sellal te bañ koo def nag ni nga xamante ni moom moo xew ci jamono ji di saraxe loo xamante ni bëggoo ko walla ngay dem ci ñoo xam ne ñu lay tegtal naan la nanga ko jox ku mel nii walla nanga ko jox ku naa sarax moom boo ko xasee ba yor di ko def ngir yàlla boo génnee koo njëkk a dajal rek mën nga ko ko jox waaye nag na yàlla rekk tax kon sellal gi mooy li ci ëpp solo kon saraxa ngi noonu mbokk yi yàlla nañu yàlla nangul suñuy koor jëggal ñu mboolem rëcc rëcc yi teewaloonu ay ramadaan yu bare bare bare bari wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamullahi aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu